Bonjour, euh, fidèles auditeurs et auditrices de Réumi FM. Bienvenue dans votre émission L'encre et la plume. Euh, L'émission euh, qui fait la promotion de l'écrivain et qui euh, se passe donc tous les samedis à partir de 9h sur euh, Réumi FM. Nous recevons ce matin Monsieur Abdul Aziz Dramé Faye. Il est enseignant mais également écrivain. Euh, Monsieur fay bonjour et merci d'être là ce matin. Merci beaucoup, Madame Sylvie, euh, pour cette invitation à votre émission L'encre et la plume. Une émission qui fait la promotion de la lecture, de l'écriture, mais aussi des auteurs. Mm -hmm. J'en profite euh, pour saluer tous les auditeurs et auditrices de Réunion FM. D'accord. Merci beaucoup. Parlez-nous euh, de vous. Dites-nous qui est Abdoul Aziz euh, Dramé Faye. Euh, pour faire simple, je peux dire que Abdoul Aziz Dramé Faye est un enseignant de profession et écrivain. Je suis actuellement en service à l'école Kor Diokel de Nianing, euh, dans l'IEF de Mbour 1. Euh, je suis l'auteur de l'île des mots, publié aux éditions Harmattan en 2019. L'excellence en langue et communication, publié par la même maison d'édition en 2021. Mm -hmm. euh, je suis aussi co-auteur de Plaidoyer pour l'enfance, mm aux éditions Gorée en 2020. Mm -hmm. Et aussi, euh, publié aux éditions Harmattan en Euh, le Jardin de l'Espoir est mon, est cinquième ouvrage. Mm-hmm. Mm-hmm. Et ce, livre-là est publié aux éditions Innov en Guinée. Mm-hmm. En Guinée-Conakry, plus précisément. D'accord. Et, comment est née votre passion pour l'écriture je peux dire que depuis, tout petit, je nourris une, grande passion pour euh, l'écriture. Euh, mes écritures n'étaient pas forcément les meilleures, mais je continuais à écrire parce que depuis tout petit, j'étais, j'étais un peu timide et c'était un moyen pour moi de me, de soulager, quoi. Mm -hmm. C'est la raison pour laquelle je, je souvent à, à, écrire. Et il y a une de nos professeurs aussi, Madame Diouf, qui fut d'ailleurs députée à l'Assemblée nationale, qui nous a un peu donné le virus de la, de la, de l'écriture. La, de mm -hmm. Parce qu'en classe de quatrième, si je me rappelle bien, euh, elle avait donné un, sujet sur le, sur le Sénégal et elle avait demandé à, à tous les élèves d'écrire un poème sur le Sénégal. Moi, j'avais écrit un poème qui était vraiment apprécié par tous les élèves. Et depuis ce jour-là, le, le, est là, quoi. C'est ce qui a sonné un peu le déclic. Mhm. C'est ça. D'accord. Et depuis quand vous écrivez pratiquement depuis, la classe de quatrième. Hein. Depuis la classe de quatrième, j'ai commencé à, à écrire. D'accord. Et comment vous vient l'inspiration quand vous décidez d'écrire euh, L'inspiration, je peux dire que tout m'inspire. Que ça soit un débat entre amis, que ça soit, par exemple, un livre que j'ai lu, euh, une émission, un proverbe. Je peux dire que la nuit, parce qu'on a l'habitude de dire que la nuit porte conseil, mhm. je peux dire que tout m'inspire. Mhm. Tout m'inspire. Mhm. D'accord. Oui. Étant jeune, vous êtes jeune, pourquoi vouliez-vous devenir écrivain C'est une très bonne question. J'ai l'habitude de dire euh, que mieux vaut ne pas exister que d'exister sans se faire connaître. Donc ça, c'est ce qui m'a un peu motivé. Deuxièmement aussi, c'est pour au moins léguer quelque chose à la génération future. Mmh. Donc, euh, quand j'écris, c'est pour que les gens puissent au moins en tirer en tirer profit au moins éveiller les consciences alerter voilà penser penser un peu les plaies béantes de notre société donc c'est les raisons qui me poussent le plus souvent à écrire. D'accord, vous parlez de plaies béantes de la société. Euh, quels sont vos thèmes d'habitude, les thèmes que vous développez en général euh, dans vos livres? Les thèmes, il y a par exemple la solidarité, mm-hmm. Parce qu'on dit que le Sénégal est un pays de la teranga, mmh. la solidarité, il y a l'amour, il y a l'amitié. Et dans mes poèmes aussi, je, parfois, je rends hommage à des, à des personnes comme des, les marabouts, des hommes politiques célèbres, comme euh, il y a le poème sur euh, Cheikh Ante Diop, tu vois, un poème sur Bagnas, Mamdiara Bousso. Donc, euh, voilà, je hommage à des, personnes. Mm-hmm. euh, des faits marquants, comme par exemple euh, l'équipe nationale. Quand, notre équipe a remporté la Coupe d'Afrique aussi, il y a des poèmes sur, euh, notre équipe nationale. Donc pour dire que voilà, je un peu à, tout quoi. Mhm. Ça dépend des moments, ça dépend des contextes. Euh, êtes-vous aidé de quelqu'un pour écrire Non. Je ne suis pas, aidé. quand l'inspiration vient, j'écris Et après, j'essaie de peaufiner les écritures. Après cela, je, dépose dans une maison d'édition pour voir ce que cela va donner. Mm-hmm. Et je remercie, le bon pour ça. Mm-hmm. Parce que n'est pas donné à n'importe qui aussi. Mmh. est-ce que ça pose problème selon vous ici au Sénégal Parce que ce recueil, vous l'avez édité en Guinée-Conakry. Pourquoi Merci mm-hmm. en Guinée-Conakry pour ce livre, ce dernier ouvrage je peux dire que est publié aux éditions Innov en Guinée-Conakry. Mm -hmm. Pourquoi la Guinée-Conakry? Parce que c'était dans le dans le but de promouvoir la littérature au niveau de la jeunesse. Et la maison d'édition Innov avait lancé le concours mhm. pour le prix Innov 2022 mm -hmm. pour le compte du Festival international du livre et des auteurs, mhm. c'est-à-dire le FILA. Mhm. Et par la, par la grâce de Dieu, euh, je suis sorti deuxième pour la catégorie poésie. Et parmi les conditions de, ce concours-là, les trois lauréats devaient avoir le livre édité par la maison d'édition mmh. en Guinée. Et c'est la raison pour laquelle le livre est publié. Hmm. Mais le plus souvent aussi, je publie surtout à Armatan, Sénégal. Mmh. Mais j'en profite pour dire que la publication d'un ouvrage, surtout au Sénégal, n'est pas, du tout facile. Hmm. Parce qu'il faut, des moyens. Et parfois, on n'est pas, aidé. Hmm. c'est surtout ça. D'accord. Euh, vous ne bénéficiez pas euh, des financements euh, alloués aux écrivains chaque année Non, pour le moment, je n'ai pas bénéficié des financements. Vous ne faites pas partie de l'Association des écrivains du Sénégal Pour le moment, non. Mais ah, je pense que. Il faut intégrer pour pouvoir de... bénéficier de ces, euh, de de faire tout pour, euh, pour intégrer ce, voilà, ce, ce, je sais pas, cette organisation. D'accord. Parce que c'est pas c'est pas facile de publier un livre ici, que parfois c'est les moyens qui, qui, qui font défaut. Mmh. Bien sûr. Voilà. Euh, euh, vous avez dit tout à l'heure, Abdou Aziz, vous avez publié euh, cinq euh, livres. Euh, lequel a été le plus vendu et pourquoi Pour le moment, le, le, je peux dire que c'est L'excellence en langue et communication. Mmh. L'excellence communication qui est un livre didactique. Mhm. et qui s'intéresse aux élèves en classe de cm et cm mm-hmm. Parce que y a beaucoup de beaucoup de collègues, beaucoup de collègues qui sont intéressés par les livres et, qui en ont acheté beaucoup, mm-hmm. surtout pour la pour la formation de leur, leurs élèves. Mm-hmm. Voilà. C'est, pour le moment, c'est l'excellence en langue et communication. D'accord. Merci beaucoup, Abdoul Aziz Faye, euh, pour cette euh, présentation. Vous êtes enseignant, euh, mais également vous êtes euh, écrivain, auteur du recueil de poèmes Le Jardin de l'espoir. Parlez-nous un peu du choix du titre Le Jardin de l'espoir. Bon, comme quand on parle du jardin, il y a la beauté, il y a les, fleurs, on a envie de se promener dans un, jardin pour changer un peu les idées. Mm-hmm. Tu vois Et à chaque fois, le, jardin, quand on est dans un jardin qui doit fleurir, ça nous donne toujours espoir. Mm-hmm. Et les poèmes qui se trouvent dans ce, recueil, c'est des poèmes qui, alertent, qui, défendent, des poèmes qui nous permettent au moins bon, d'avoir espoir, mmh. parce qu'on ne doit jamais perdre espoir. Mmh. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le titre comme le jardin de l'espoir. Mhm. Donc euh, c'est des poèmes qui éveillent, des poèmes qui pensent tout à l'heure nos plébéens comme je l'ai dit, mhm. mais c'est des poèmes aussi qui irriguent l'espoir. Mhm. Voilà, c'est pourquoi j'ai choisi ce, ce titre là. D'accord. Euh, dans, dans le poème Parents, quel message voulez-vous faire passer Vous parlez de disparition d'enfants, un sujet qui fait l'actualité. Parce qu'il fut du temps, beaucoup de beaucoup d'enfants disparaissaient. Les parents s'inquiétaient. Mm -hmm. Et c'était une occasion pour moi aussi de, de, donner un message aux parents pour leur demander de surveiller, de redoubler d'efforts. Mm en ce qui concerne la surveillance des enfants. Mm-hmm. c'est ce qui m'a motivé à écrire, ce poème-là. Mm-hmm. Voilà. C'est pour que les gens puissent prêter attention, surtout à, leurs enfants. Parce que c'est un, un, qui est là, c'est un phénomène récurrent. Mm-hmm. Pouvez-vous nous déclamer ce poème Pour les le euh, Le poème les... sur les parents. oui. pour nos auditeurs euh, D'accord. Je disais dans ce poème, mm -hmm. parents, mm -hmm. surveillez vos enfants. Oui, surveillez-les. Chers parents, autour de vos logements rôdent des hommes méchants. Ils se baladent. Aux enfants, ils racontent des salades. À l'hameçon, ils veulent les faire mordre. Méfiez-vous. Ils les arracheront à votre affection pour l'avoir pour le pouvoir. Ils les sacrifieront sans remords. Mm-hmm. Vous laissant le cœur débordant d'amertume. Ces gens vivent dans la crapule. Surveillez vos enfants. Mmh. Ces hommes sont sans cœur, sans peur. Surveillez vos enfants. Ces malfaisants n'auront pas pitié, car ils ignorent la pitié. Mm-hmm. Surveillez vos enfants. Ils ne seront pas tendres, car ils ignorent la tendresse. Surveillez vos enfants. ces hommes marchent avec le diable. Donc c'était un peu de poème sur, sur les parents. Mmh. Donc, euh, vous pensez que il euh, euh, y a des parents qui ont démissionné de l'éducation de leurs enfants, qui ne surveillent pas assez les enfants Effectivement, effectivement. C'est tout ça. C'est un message que, que j'adresse aux parents, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison. Donc, on doit beaucoup prêter attention aux, aux enfants. que quand vous sortez un peu partout dans la rue, vous voyez les gens qui traînent, hmm. parfois à des heures tardives. Hmm. Donc peut-être quand les parents vont écouter ce poème-là, ils vont, redoubler d'efforts. Hmm. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont démissionné. Et le phénomène est, là. Nous, on sûr. constate chaque jour à l'école. Bien sûr. une réalité. Voilà. Euh, mais pourquoi avoir choisi le poème euh, au lieu euh, du roman Une très bonne question. Moi, je dis le plus souvent comme, comme étant écrivain, pas seulement poète. Mhm. Parce que le poète, c'est celui qui le plus souvent écrit des, poèmes, Voilà. Moi, je me, considère comme un écrivain, parce que l'écrivain, quand on parle d'écrivain, c'est un peu vaste. quand on parle du, de l'excellence en langue et communication, c'est un livre didactique. Oui. Voilà, donc euh, voilà, c'est pas de la poésie. Mm -hmm. la plupart de mes œuvres, c'est des, recueils de poèmes. Mhm. Parce que Le Jardin de l'espace, c'est un recueil de poèmes, de même que L'île des mots, mon premier recueil de poèmes est Couche 19. Mm on, voilà, là c'est un, collectif mhm. et nous avions publié ce recueil-là. mais j'envisage encore pour le livre qui va sortir très prochainement, mmh. ça mhm. sera aussi un, un livre didactique. Didactique, mais, mais, pour la, la, la mais, deuxième étape. Didactique, mais poésie également. Non, non, pas poésie. C'est un livre, ça concerne seulement les. C'est pour l'école, surtout. Mhm. Pour les élèves en classe de CE1 et CE2. Mhm. Et ce livre sera, publié aux éditions Armatan, Inch'Allah. D'accord, par la grâce de Dieu. Mais, Par la grâce de Dieu. Mais bon, j'envisage aussi de d'écrire de, de, des romans après. Mm -hmm. Mais je suis pas seulement je suis pas seulement poète. Je me définis comme étant un écrivain. Un écrivain tout court. Un des poèmes euh, est intitulé Coronavirus. Coronavirus. vous l'avez écrit en période de pandémie. Tout à fait, Tout à fait. Mhm. C'était en période de pandémie. Les gens était tenaillé par les, par mesures de l'État. Mmh. Tu on s'enfermait, bon, 20 heures, tout le monde est, voilà, tout le monde est au lit. Donc ça faisait un peu, mal, quoi. gens étaient stressés. Mhm. Et bon, cela m'a inspiré un tout petit peu écrire le, poème sur le coronavirus. Mhm. La pandémie, euh, une première euh, que le Sénégal a vécue, la pandémie de Covid-19. Oui, une première. Mm et vraiment qui a emporté beaucoup de nos concitoyens. Mm-hmm. Et c'était vraiment, c'était vraiment difficile parce que c'était une première, difficile à vivre. Oui. on pouvait lire le stress un peu partout, à que ce soit à l'école déjà, on avait fermé les écoles, les mosquées, donc euh, c'était un peu compliqué. Voilà, donc euh, c'est ce qui m'a un peu poussé maintenant à écrire Les gens craignaient ce, virus. Mm-hmm. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce poème en disant toi Corona, l'on te craint, mm -hmm. l'on se méfie de toi, mhm. inconnu ça et là. Parce que c'est un virus qui était inconnu. Mhm. Tu tues sans pitié, mhm. redouté de tous, tu n'épargnes ni pauvre ni riche. Ô meurtrier infâme, combien d'hommes, combien de femmes, combien d'enfants, combien ont péri face à ta virulence Combien, ô monde entier, tu donnes du fil à retordre. À cause de toi, les peuples sont rompus de lassitude. Ô Corona, va-t'en. J'ai envie d'aller palabrer, c'est mon voisin. Marcher avec mes amis. Aller à l'école pour instruire. Revoir mon imam sur le minbar. Voyager comme un papillon en l'air. Mais ça craint. Oui, ça craint. Depuis ton passage, tu nous affliges. Ô peuple du monde, mobilisons-nous contre ce virus immonde. Méditons, prions, en bons chrétiens et musulmans, prions. pour que le corona nous quitte à jamais. Prions pour que la vie redevienne ce qu'elle était. Donc voilà un peu le poème sur, euh, mhm. le coronavirus. Mhm. Vous avez une très belle plume. Merci beaucoup. <laughs> Euh, vous avez également parlé de l'émigration, un sujet qui fait également euh, un sujet d'actualité. Euh, actuellement, beaucoup de jeunes Sénégalais, de jeunes Africains, je vais même dire, euh, prennent les pirogues au péril de leur vie à la recherche euh, d'une vie meilleure en Europe. Effectivement, voilà, on doit prier pour ces gens-là, pour le repos des âmes des gens qui nous ont quittés en voulant traverser la Grande Bleue mhm. pour, espérer, pour une vie meilleure. Mm -hmm. C'est toujours difficile. Nous avons nos frères, nos sœurs. Même dans, notre quartier, il y a beaucoup de, jeunes mhm. bon, qui, ont, qui ont péri. Mhm. Donc c'est très difficile et je pense que l'État doit, redoubler d'efforts pour au moins limiter le, ce fléau. En essayant de donner du travail l'État est en train de faire des efforts, mais de voilà, euh, d'essayer de maintenir les jeunes au pays. Mhm. Parce que tous les gens là qui tous qui ah. partent, c'est dans le souci d'une vie meilleure, dans le souci d'aider leurs parents. C'est parce que le Sénégal est un peu difficile. Mmh. D'accord. Euh, vous avez parlé également de violences faites aux femmes euh, dans ce recueil. La violence faite aux femmes est d'actualité. Mhm. Il suffit tout simplement de faire un, un, petit saut dans les réseaux sociaux ou bien regarder dans les quartiers, etc. On en parle tous les jours. Mm Et je pense que la femme est un don de Dieu. La femme ne doit pas être, battue. Et ce n'est pas seulement battre la femme, parce que la violence, il y a plusieurs types de violence. Il y a la violence verbale, etc. Mm-hmm. Donc, euh, tous ces types de violences-là doivent être bannis. Mm-hmm. Parce que la femme ne mérite pas ça. Mmh. La femme mérite d'être adulée, d'être, d'être mm-hmm. mais pas injuriée, battue. Vraiment, c'est des choses à, à éviter. À éviter. Mmh. Et que dit euh, ce poème? Le poème sur la femme. Mm-hmm. Donc, euh, pour ce poème, mm-hmm. à ah, je disais c'est une femme. Mm Ne la martyrise pas. Vois en elle ta sœur, ta mère, ton épouse, ta muse, ta chérie, ta douce amie. Et la situation et si la situation est amère, endure. Et souviens-toi de vos nuits mielées, de l'odeur délicieuse de ses mains. Comprends-la, ne l'injurie pas. elle ne la mérite pas. Mm -hmm. Elle a besoin d'attention, de passion, de tendresse, d'espérance. Ne la déprécie pas. Elle est une belle âme. Une compagne indispensable, un cordon ombilical nous lie, et à leur côté, nos douleurs s'oublient. Gloire à la fille donc voilà un peu le poème euh, sur la femme et on doit rendre hommage à la femme. Mm-hmm. Et on dirait que vous vous adressez ici aux hommes. Oui, ça c'est je m'adresse aux hommes. Mm-hmm. Parce qu'on doit être on doit galant aussi. Mm-hmm. <laughs> Euh, je m'adresse à mes voilà, je m'adresse aux hommes. Donc pour que pour qu'on puisse faire de notre mieux pour mieux traiter la femme. Parce que la femme vraiment elle endure. C'est la femme qui, bon, qui, qui s'occupe des enfants le plus souvent. Donc l'éducation à la base, c'est la femme. Mmh. Donc euh, cette belle âme mérite honneur et considération. Mhm. Donc voilà, c'est ce poème-là. Donc, euh, gloire, honneur à vous. <laughs> Merci beaucoup pour ce poème. Euh. la question de la Palestine également vous tient à cœur. Oui, je pense que pour tout bon musulman, cette question ne doit pas nous laisser indifférents. Donc cette question ne doit pas nous laisser indifférentes. Donc euh, nous avons une pensée pour nos frères et sœurs musulmans qui se trouvent en Palestine mm -hmm. et qui souffrent énormément. Parfois, quand on voit les images à la télé, on a envie de pleurer. Mais donc, on va, on, en tant qu'écrivain, moi j'ai pris ma plume pour au moins dénoncer ce qui se passe dans ce pays. Et c'est une façon à moi aussi d'apporter mon soutien, mon soutien au peuple palestinien. Mmh. Donc chacun de son côté aussi euh, doit essayer de faire la même chose. Il y a des gens qui organisent des marches, mmh. qui peuvent écrire sont en train d'écrire. Mm -hmm. Et ceux qui peuvent faire autre chose aussi, je pense qu'ils doivent le faire pour que ce fléau-là vraiment puisse s'arrêter. Parce que nul n'a le droit d'ôter la vie de, de, de, son, de, prochain. Mm -hmm. oui, euh, la femme semble occuper une place importante euh, dans, vos, dans votre écriture. Euh, plusieurs poèmes euh, dans ce recueil sont dédiés à la femme, euh, dans Ma femme, Euh, femme avec S, Brave Femme, il y a aussi Violence faite à la femme, il y a aussi Mam Diara Bousso, il y a Mossan, je pense qu'il veut dire Mossan, euh, euh, un mot serré, hein, Tout à signifie la beauté de la, la jolie, voilà. Euh, Dites-nous un peu la femme qui occupe une place importante dans votre vie. Pourquoi tant de poèmes dédiés à la femme dans ce recueil Bon, la réponse sera, simple parce que moi, j'ai beaucoup de respect mm-hmm. vis-à-vis de la femme. Mm Beaucoup de respect. Mm-hmm. Et voilà. Euh, la femme, je l'ai dit tout à l'heure, euh, la femme est un don de Dieu. La femme doit être bénie. Parce que la femme, c'est grâce à la femme que nous sommes là aujourd'hui. C'est la femme qui donne naissance. C'est la femme qui allaite. C'est la femme qui nuit comme de jour, s'occupe mm-hmm. des enfants, de son mari. Mm-hmm. Donc, et parfois sans grognement ni murmure. Mm-hmm. La femme peut encaisser 1000 kg d'amertume et le lendemain vaquer à ses occupations. Seule la femme peut faire ça. Donc, c'est par respect, par considération, par l'amour que je porte à la femme que je que le plus souvent j'écris des poèmes pour rendre hommage à la femme. Bien sûr, vous avez débuté ce recueil par euh, un titre Ma femme. Vous adressez à la vôtre. <laughs> N'est-ce pas? Bon, ma femme, oui, oui, bon, on peut dire que si elle m'a elle m'a elle m'a un mhm. Et c'est pourquoi quand j'ai commencé, le, mhm. le premier poème c'est c'est Dealer. Mhm. C'est le deuxième poème qui est Ma femme. Oui. Et Mossan mosan aussi, c'est pour un peu comme je suis célèbre. Et bon, le mot Mossan qui signifie aussi la beauté, c'était une façon un peu de, de rendre hommage à la femme célèbre. que je, par exemple les femmes serrées bon, je dis que toutes les femmes serrées sont belles mm-hmm. parce que les autres vont m'en vouloir mais bon mm-hmm. j'ai déjà ce poème à aux femmes serrées surtout mm -hmm. c'est pourquoi j'ai préféré intituler ce titre là Mossan Mossan mm. et euh, Mame que dit poème Mame Diarra Bousso oui c'est la mère de Cheikh Ahmadou Bamba mm-hmm. et elle n'a pas vécu longtemps, mais jusqu'à présent, on parle de son histoire. Oui. C'est une femme qui peut, qui sert, qui peut servir d'exemple et qui doit, qui doit servir d'exemple aux autres femmes mm -hmm. parce qu'elle s'est sacrifiée, surtout pour son mari. Mm -hmm. Et c'est ce, ce, que, ce qui lui a valu aujourd'hui cette, cette renommée. Mm -hmm. Donc, elle a, c'est une femme qui a qui a appris le Coran. C'est une femme qui, s'est beaucoup investie, n'est-ce pas, pour aider son mari. Et on a l'habitude de dire, derrière chaque grand homme, il y a une grande, une grande dame. Mm-hmm. Donc, euh, c'est pourquoi aussi, j'ai tenu à rendre hommage à, à Mam Parce que dans ce texte, je l'ai dit aussi, mm-hmm. euh, a il y a des poèmes où je rends hommage à des, personnes. Mhm. Je peux parler de mon guide, euh, Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Je peux parler de. Il y a Cheikh Anta Diop aussi, le pharaon d'Égypte. Ouais, il y a Barham, euh, Barham Niass, mm voilà, qui est aussi un disciple de Bagnas et qui habite dans la région de Fatigue, mhm. qui, est décédé. Donc, euh, je rends hommage à ces gens-là. Et rends hommage aussi dans ces poèmes-là à, euh, un ami. Mm-hmm. On a eu à faire la formation à la Fondation Frédéric Ebert, mm du nom de Momodou, Momodou Ndiaye. Momodou Diop, autant pour moi. Mm-hmm. Donc, euh, lui aussi, c'est après la formation qu'il a rendu l'âme. Donc, aussi, cela m'a un peu touché et j'ai écrit un poème pour lui. Voilà. Mais C'est ça quoi. Oui. Mais pour le poème Mam Diarra Bousso, mhm. voulez que, je déclame oui, ce Mam Diarra mhm. Mam, je te chante. Je te chante à cœur joie, auguste femme, femme généreuse et pieuse, pure comme l'or d'un galam. Mam, je te chante. Je te chante pour exalter ta gloire une gloire rare comme l'eau dans le désert. Ô Jaratullah, mère de Cheikh Ahmadou Bamba, tu le reflet de mille sagesses, mille images. Oui, images, comme Marie, mère de Jésus, Aïcha, épouse du prophète, Fatima, fille du meilleur des envoyés, ô Bousso Bali, femme vertueuse, imbu de valeurs cardinales islamiques. Gloire et honneur à toi. Dès ton bas tu as mémorisé la Sainte Vulgate et tu en as fait ton livre de chevet. Ô oh, Sokhna Diarra, merci. Tes 33 ans sur terre ne sont pas ans en l'air. Merci. Merci mille fois. De toi, nous avons appris.

Donc, euh, Merci, en tout cas. Merci pour ce poème. Euh, a un poème également dédié aux enfants. Oui, vous adressez un message fort à ces enfants-là. Oui, les enfants, les enfants font partie de nous. Mm -hmm. Et surtout nous qui sommes, par exemple, à, dans l'école élémentaire, on a toujours affaire à des enfants. Mm-hmm. Et l'enfant, on ne pas dire que l'enfant a la tête vide. On doit respect à ces enfants-là parce mm-hmm. qu'ils connaissent quelque chose. on doit au moins les accompagner. Parce que ce sont ces gens-là qui, demain, mm-hmm. seront, vont dire, ont la destinée de ce pays-là. Donc, parmi les enfants, par exemple, quand tu es à classe, quand tu as des enfants en face de toi, il faut savoir que tu as devant toi des médecins, mmh. tu as devant toi des soldats, des militaires. Mm-hmm. Vous avez peut-être le futur président de la République du Sénégal, mm-hmm. qui sait. Mm-hmm. Donc, tu as devant toi, par exemple, toute catégorie de, personnes. Donc, tu ne sais pas peut-être demain qui sera qui, sera quoi. Donc, c'est pourquoi ces enfants-là méritent aussi, comme je l'ai dit, respect et considération. Donc on doit prêter beaucoup attention à ces enfants-là, les orienter, les guider. Mmh. Très, tôt. Mmh, c'est parce c'est l'autre qui disait dis-moi quelle Zerestia, je te dirai quel peuple tu, tu seras. Mmh. Et je pense que ça doit se construire à la base, surtout avec les enfants. C'est important. Oui, on poursuit. Ça. Euh, dans le poème Quel monde Dites-nous quel monde chantiez-vous Le monde n'est plus ce qu'il était. tout a changé, tout a, tout a basculé. Vous avez les guerres par-ci, par-là. Euh, voilà. Les réalités ne sont plus les mêmes. Et cela m'a poussé un peu à chanter ce monde-là qu'on est en de vivre. Et les choses deviennent de plus en plus difficiles. Mm-hmm. Parce que quand on compare, quand on compare d'année bien vrai que il y a les nouvelles technologies de l'information il y a des avancées qu'on peut noter mais ça devient plus compliqué le savoir est devenu par exemple plus facile mais on dirait que les gens sont animés par par d'autres choses mm-hmm. donc au lieu par exemple de voilà de chercher la connaissance dans les réseaux sociaux etc mais les gens préfèrent euh, comment dire encore, calomnier, les gens préfèrent insulter, et vraiment, c'est des choses qui... Et les gens aussi font la guerre sans savoir pourquoi, mmh. dans des pays, tu vois, des, des, pays en guerre. Ils se, ils se tuent sans savoir même le pourquoi. Donc, euh, un monde comme ça, vraiment, c'est un monde très difficile à vivre et voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai chanté le, j'ai chanté le monde. Mmh. Vous avez abordé le thème euh, de voleur. Pourquoi ce thème Voleur euh, Ou bien, de quel que... voleur vous parlez Bon, je, là, je peux dire n'importe quel voleur. C'est-à-dire, parce que imaginez quelqu'un qui, qui a fait des économies, quelqu'un qui a, par exemple, sa bagnole, par exemple, quelqu'un qui a, en quelque sorte, son matériel. Toi, partisan du moindre effort, tu viens de rêver cela. Donc, c'est des pour on peut éveiller les consciences, pour dire à celui qui, vole, par exemple, qu'il y a une meilleure solution. La meilleure solution, c'est quoi C'est d'aller travailler. Et là, il n'aura plus l'occasion d'aller, même s'il a l'occasion, mais il ne va plus s'intéresser au vol. Mm-hmm. Voilà, c'est pour on peu éveiller la conscience de ces voleurs-là. Et ce n'est pas seulement parfois les gens qui, qui entrent dans les maisons pour voler, etc. Quand on parle du vol, c'est surtout ces gens-là, certes, mais ça peut aussi aider aux autres qui sont dans, soit les entreprises ou ailleurs et qui peut-être font des choses qui ressemblent à du vol. Mm -hmm. Ça, va toucher un peu ces gens-là aussi. Ça peut les aider un peu à, avoir conscience de, de, du mal qu'ils sont en train de, qu'ils sont faire. Mhm. D'accord. Et c'est pourquoi j'ai un peu écrit ce poème-là. D'accord. Vous avez également rendu hommage aux enseignants dans ce recueil Enseignants, c'est pas parce que je suis enseignant, mais l'enseignant aussi est, euh, a du mérite. L'enseignant a du mérite. Euh, l'enseignant participe au développement du pays si nous si je suis là aujourd'hui peut-être à pouvoir parler la langue française c'est grâce aux enseignants donc on doit les remercier on doit les soutenir on ne doit pas les déprécier mhm. donc euh, malgré euh, un salaire peut-être en parenthèse modique mmh. jour et nuit les enseignants sont sont en train de faire les des efforts pour former la génération future. Mmh. Et regardez en période de pandémie, tous les enseignants sont levés comme des soldats pour continuer les enseignements apprentissage en période de pandémie. Mmh. Donc voilà, j'ai écrit ce poème-là pour au les rendre, les rendre hommage. Mmh. Déclamez-nous ce Et quand j'ai commencé à, à, à enseigner, j'ai compris euh, le rôle le rôle, le rôle vraiment important que les enseignants jouent pour, pour cette société-là. Mm -hmm. Et c'est pourquoi voilà, le poème sur euh, enseignants, donc, euh, je disais, enseignants, ô combattants d'ici et d'ailleurs, je vous tire mon chapeau. Je vous tire mon chapeau car votre métier est sans prix et mérite tout prix. Je vous tire mon chapeau, car votre métier tire des ténèbres le peuple. Votre métier tire de la servitude le peuple. Ô braves et illustres enseignants, travailleurs bénis, merci. Merci pour ce choix de vie. Merci pour ce choix magnifique, cette tâche bénéfique malgré un salaire modique. Voilà ce poème-là pour euh, mm pour rendre hommage à mes collègues et j'en profite pour euh, voilà euh, saluer tous mes tous mes collègues enseignants et particulièrement ceux de Kor Diokel Faye de Nianing, là où je suis en service. D'accord. Dans Cri du cœur également, euh, vous parlez des enseignants, vous dites tout État qui déprécie ses enseignants est un État qui se suicide. Tout à fait. Et c'était, c'était, c'était l'année dernière où la période pendant laquelle les enseignants étaient en grève, de même que les élèves. Et c'était, une façon pour moi de, la, de, de lancer un message à nos autorités pour que ces gens-là puissent prendre acte des revendications des, des enseignants. Mm-hmm. Parce que des, des, vraiment c'est des revendications nobles mm-hmm. et que les enseignants méritent. Mm-hmm. Il y a des choses que l'État a fait, mais euh, voilà, il reste beaucoup de choses à faire encore, mm-hmm. surtout euh, en ce qui concerne les abris provisoires, donc euh, en ce qui concerne le matériel, donc l'accompagnement. Donc tout ça, vraiment, l'État doit redoubler d'efforts par rapport à ça. C'est pourquoi j'avais écrit ce poème-là. c'était une sorte, un, message que j'ai voulu adresser surtout au président de la République du Sénégal. Pour lui dire, pour lui dire qu'on ne doit pas déprécier les enseignants. Uh Parce qu'un enseignant qui déprécie ses enseignants, c'est un, État qui se suicide. Uh-huh. Parce que ce sont, ces, les enseignants qui, qui ont en charge uh la formation de la jeune génération. Et ces gens-là, ce sont les gens qui, demain, vont diriger ce pays-là. Bien sûr. Donc, c'est la base qui oriente le sommet. Mm -hmm. Donc, c'est à partir de la base qu'on doit, qu'on faire tout pour que demain, au moins, on puisse aspirer au développement. Mm-hmm. Justement, vous avez un nouveau ministre de l'Éducation nationale en la personne de Moustapha Guirassi. Vos appréciations Moustapha Guirassi, pour le moment, les actes qu'il est en de poser, c'est des actes que vraiment les enseignants mhm. saluent de tout cœur. Mhm. Donc, surtout par rapport aux, aux arrêtés, bon, parce qu'il y a beaucoup de lenteur administrative. Donc, euh, franchement, depuis qu'il est là, il, est en train de, de faire des efforts. Et on espère, on espère qu'il va continuer sur cette lancée-là. Mhm. Donc, on lui souhaite plein succès pour, euh, pour cette nomination. on, a, bon espoir. D'accord. Euh, un des poèmes est également intitulé Méfie-toi. Euh, déclamez-nous ce poème et dites-nous pourquoi Méfie-toi. Ceux qui te sourient, ceux qui t'applaudissent, ceux qui te chantent, mm qui t'attirent vers eux, ceux qui tendent la main, mm -hmm. ne sont pas forcément avec toi. Mm Méfie-toi. Mhm. Tes peines peuvent ne pas être les tiennes. Mhm. Méfie-toi il y a parfois des loups au milieu des brebis. Et ce n'est pas parce qu'ils sont à, à tes côtés qu'ils sont de ton côté. Mmh. Méfie-toi. Bon, ce poème-là, je l'ai écrit pour attirer l'attention de tout chacun de se, de se méfier. parce mm-hmm. Parfois, tu peux être en groupe espérant ou bien en, en pensant que ces gens-là qui sont autour de toi sont avec toi, tous ces gens-là t'aiment alors que ce n'est pas le cas. Mm-hmm. Donc, il faut avoir euh, un esprit de discernement mm -hmm. pour pouvoir savoir qui t'aime et qui ne t'aime pas. Mm Donc, c'est pourquoi je dis, il vous se méfier et qu'il y a des loups parmi les brebis. Et c'est difficile parfois de les, de les reconnaître, mm -hmm. mais de toute façon, il faut se méfier. Mhm. D'accord. Et c'est pourquoi voilà, j'ai écrit ce poème Pour attirer l'attention de tout un Oui, bien sûr. Ce sont là quelques poèmes euh, que j'ai jugés captivants, que j'ai relevés. Euh, mais il y en a d'autres dans ce recueil de poèmes dénommé Le Jardin de l'Espoir. Euh, dites-nous, lequel de ces poèmes vous a le plus marqué et pourquoi Non, c'est le poème sur Sur la carte, car le Sénégal a remporté la, pour la première fois de son histoire euh, la Coupe d'Afrique des Nations. Mhm. Donc, euh, ce, fut un, un énorme plaisir pour moi, euh, parce que une première. Donc, le Sénégal était maintenant sur le toit de l'Afrique. Et automatiquement, pour, écrire un poème, pour rendre hommage à nos, lions. vraiment, qui sont beaucoup investis et on a senti que le peuple était vraiment derrière. Mmh. Le peuple voulait cette canne-là et par la grâce de Dieu, nous l'avions remportée. D'accord. Allez-y, déclamez ce poème. Lion de la Teranga, maître redouté de la brousse, aigle, panthère, éléphant sont vos serres dans la jungle. Avec hargne et témérité, vous avez remporté cette canne. Cette canne tant rêvée cette CAN tant souhaitée. Oui, enfin une étoile. Et une étoile devant l'équipe la plus titrée. Quel exploit! Quel sacre historique! Quelle sublime épopée! Dans nos cœurs, vous avez semé la joie et l'harmonie. Vrai lion de la tanière, vous avez relevé le défi, le défi de vos devanciers qui ont longtemps langui pour un trophée continental. Voilà le poème sur, euh, sur les lions du Sénégal. Mhm. Et c'était lors de la Coupe d'Afrique que nous avions remporté. Et vraiment, c'était un, énorme plaisir. Mhm. on souhaite que le Sénégal en remporte d'autres, Inch'Allah. Mhm. Amen. D'accord, merci beaucoup. on a euh, fait un constat de nos jours, euh, la plupart euh, des Sénégalais, des élèves en général, ne lisent plus Euh, vous êtes enseignant, vous écrivez également. Selon vous, comment intéresser les élèves à la lecture Merci beaucoup pour cette, cette question qui, qui m'intéresse beaucoup. Euh, L'importance de la lecture d'abord. Moi, j'ai l'habitude de dire que la, la, lecture permet de divertir et de se faire plaisir d'abord. La lecture nous permet de développer la mémoire, les capacités cognitives, d'améliorer la concentration, non les l'expression orale que ça soit l'expression orale ou bien l'expression écrite mais la lecture nous accroît la connaissance développe l'esprit d'analyse l'esprit de critique donc enlève le stress mm -hmm. diminue le stress et nous accompagne surtout pour notre développement personnel mm donc c'est important de de lire mm-hmm. mais le constat que nous avons fait, surtout au niveau de nos écoles, les jeunes ne lisent plus, les élèves ne lisent mhm. plus. Mmh. Et la faute, à mon avis, c'est les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mhm. Parfois, tout le temps, les enfants, les enfants sont, dans les réseaux sociaux. Donc, il y a aussi un manque de livres mmh. dans nos écoles, de bibliothèques. Et quand on fait le constat, le constat est parfaitement général. Même, on n'a pas une bibliothèque nationale. Mhm. à ma connaissance. a pas. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est au moins doter des écoles de livres, de manuels, pour essayer de construire des bibliothèques, mm -hmm. mais organiser aussi des rencontres qui vont permettre aux élèves, de, lire. Mm -hmm. C'est-à-dire leur donner le goût du livre. Mhm. Mais les élèves sont avec les nouvelles technologies, sont toujours avec les téléphones portables, Quand on demande même aux élèves de faire des, des exposés, ou bien on leur donne un sujet, automatiquement, les élèves, eux, ils sont dans le net, ils vont copier le résumé, après c'est fini. Mhm. Donc, ils ne prennent pas le temps de, de mmh. faire les recherches nécessaires. Mhm. il faudrait maintenant que, l'État fasse des efforts mhm. par rapport à la construction, à la mise en place de bibliothèques, voilà, à la dotation de livres, mais aussi essayer d'organiser des rencontres. Bien il sûr. faut qu'on multiplie les rencontres, surtout au niveau, surtout dans, les, écoles. Mm-hmm. Qu'on multiplie les rencontres, même si c'est, mensuel, pour permettre aux élèves de, lire. Mm-hmm. l'année la, passée, je l'ai organisé dans mon établissement et je l'avais appelé euh, au cours du livre. Mm-hmm. Et il s'agissait de faire quoi? De choisir des, de choisir, euh, de choisir des livres, de demander aux élèves, autant pour moi, de venir avec un livre qu'ils ont déjà lu. Et j'avais donné quelques jours aux élèves, une semaine, je ne sais pas, deux semaines. Chacun a choisi le livre qu'il aimerait lire. Mmh. Ils ont lu livre, ils ont essayé de comprendre. Et on a organisé une rencontre ici, à l'école. L'élève vient avec le livre qu'il a déjà lu. Il explique ce qui se passe dans ce livre, pourquoi il a préféré ce livre, etc. Et cela a poussé ses autres camarades à vouloir avoir ce livre-là. Donc, ça sera des échanges. Donc, ces rencontres comme ça, vraiment, c'est des rencontres à, faire, par exemple, dans nos, établissements. Mhm. Et c'est ce qui peut pousser peut les élèves à, au goût de la lecture et au goût de la recherche. Mhm. Donc, c'est mon point de vue par rapport à, cette question-là. D'accord. Euh, Aziz, quels sont vos futurs projets Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres publications Oui, bientôt, bientôt, mon autre ouvrage euh, va sortir, va sortir incessamment. Donc, ce livre sera publié à la maison d'édition Armatan du Sénégal. Mmh. C'est un livre didactique, mais qui s'intéresse aux élèves de la deuxième étape. Mm-hmm. Quand on parle de la deuxième étape à l'élémentaire, c'est le C1 et le C2. Mm-hmm. Euh, j'avais déjà sorti un livre pour la troisième étape, le livre qui s'intitule L'excellence en langue et communication. mais c'est un livre c'est en c'est en français seulement. Mm. mais pour ce livre-là euh, qui va sortir bientôt pour la deuxième étape il y a le français il y a les mathématiques il y a les SVS c'est-à-dire les leçons histoire géographie ST vivre dans son milieu vivre ensemble donc euh, il y a un peu c'est comme le format de l'examen c'est comme le format de l'examen et nous nous espérons que ce livre-là aussi va, plaire mhm. aux lecteurs et surtout aux corps enseignants. Mhm. Merci beaucoup, Abdul Aziz euh, Dramé Faye. C'est la fin euh, de cette euh, émission. Votre mot de la fin, c'est quoi? Vous remercier pour euh, cette invitation qui me va droit au cœur. Euh, les auditeurs et auditrices de Rémi FM remercier mes parents qui se sont beaucoup investis euh, dans mon éducation. Remercier mes collègues, mes frères et sœurs, mes amis parfois pour les conseils de lecture. Mm-hmm. Voilà, remercier tout le peuple sénégalais. Mm -hmm. Donc c'était le mot de la fin. Merci beaucoup à Merci. vous, Abdoul Aziz Dramé fay Vous êtes euh, enseignant, vous êtes également écrivain. Merci d'avoir répondu présent notre invitation. Euh, merci à vous, euh, chers auditeurs qui nous suivez depuis 9 heures. Merci à Diawo Diallo, à Bachir Sissé pour la mise en ordre technique de cet entretien. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine. La semaine prochaine. La La semaine prochaine.